wolofal wi maa ngi ko def ci ñi am wéradi xel te nekk ci mbedd mi ak sax furul ci mbedd mi ndax gis nañ ne fépp lañ leen di gis nañu ne eh, sunu réew yi ku ci xasaam wéradi xel rek sa nattu day yokk ndax jafe-jafe dëgg day daal di ñëw taxaw ci ñàkk gee saytoog ñàkk gee taxaw moo waraloon ñu def ko eh, way wi nag ni ma ko waxee ci njëlbeen gi rek eh, benn dof ma gisoon ci caaro yi jamono yi nawet muy taw dama génn daa taw ba reer jot ma génn di doxantu rek faa yem ci moom ma seetantal ko loolu moo sóob ci sóob ci ma way xasida gi bismillahi rahmaani rahim <clears throat> damaa génn bis caaro yi di dox romb benn dof mu toog ci buru xam jël ay yoxoom faste ci mbaggam damaa génn bis caaro yi di dox romb benn dof mu toog ci buru xam jël ay yoxoom faste ci waggam te léeg mu ree léeg-léeg mu jooy rafle wan wër ma ngay lox keroog daa sedd booleeg tarug lëndëm wérul waaye téewul nag mu dis gor de tàllalul loxoom kenn tooñul it ña toogoon ci ak wetam bu xiifee poubelle lay dem amul ndey ju koy tibbal fa nuy këppi des lay dem fa lay fekk aw ñamam te mën na wax day mujj dem lekk ñam bu bon waxam yaari fan woo xam ne baaxul ci ak wéram na muy def gisul yaayam teyit xam na yetti at yu mat sanguwul lu sol da koy for ci ay sënam bu jaaykat bi sànnee mango mbaa sax orange bu nëpp mu daw këf ko noonee sax la koy lekk ci taqam ngelaw sàqi nit daw tàbbi néegam ne kàpp tëj mu des tey kanaa yel want yey dal ci ay gëtam indeysaan e borom rombew dàll mbaa pot walaw sagar da koy teg lu rëy moo tax mu koy boole ci ëmbam dafay waxtu fu mu wéetee te mu mer di xul te kat am na ndey am baay ba am rakk am magam ba muy wér la bokk ñépp bis ñëw ñu dal ko ber eewaay wére dee tax waaye asgor la woon su gëm rakkam donn nab néegam jabar jaa ngi sëy feneen te ndoom sam xamoon boobee ba tey xoolu koy bëtam juróom-ñaari dof lan fekk tàmbaa ñu di leen ba jël seeni awraak seeni yuur lii ko daw yaram dañoo butti ñee xar boppi ñee ñaañu sànni leen ci ay kër yu kenn dëkkul ba ñuy xeeñ ñu door a gisal ñaata yoon lab dof di xëy dee ci ab tabax bu yëggul ba am ay fan ba fay xeeñ te kenn du xam gisal benn dof bee faatulee lan ci wenn xur ba fay xeeñ te ab xiif rekk moo sànk ab dundam gisal ñaata yoon lab dof di xëy lekk ñam bu bon ba feebar ci ay at kenn du jóg saytu ay mbiram gisal ñaata yoon lan fekk ab dof mu xëy wasin te kenn mën la laaxaan kenn kenn foogul ab ëmbam gisal ñaata dof ngay fekk dus kumba mbaatu béy dañuy rafle noonee rek di dem ñëpp gis pëyam gisal ñaata dof ngay fekk duñ jekki duñ ñelaw dañuy dox ba dee doo gis ku naa xam na bàmmeelam te gis naa fi ab dof bis bu am benn góom bu rëy ma ngay wokkutoo koy waxtu kenn saytuwul mbiram li lee tax ma jóg tey woo état bee yàlla ñor ñu booloo taxaw tey saytu jaay yàlla yii ñu xam woo woo waloo way réew mi wallu leen ewaay wallu leen asgor su xëy ñàkk am xelam te gis ngeen fi ay dof yooyu ku leen faj ñu daal di wér te xam ngeen ne mboolem dof yi côté yi dootu dem nda dof boo fi gis muy dem kërug nit la bàyyi ko ku wér dellu ci bokkam xarit xel dafay xalam te gis naa ko faj mbaamam te gis naa ko faj fasam fajum jàmbu jóobam faj golom sax fajub xajam te tax til mu faj mbokkam mu xëy ñàkk am xelam ku faj mbaam fajub xaj bàyyi nit àndul ak xelam ci lii sax ci laay faf ñaaxe askan wi may waxal ñu daw lépp luy tax nit di xëy ñàkk am xelam xelay gànjarum nit xel la nit am ba not ma fër xelay tax xaleeb naar not gëléem bay xëccam nosam xelay tax nu wullik naaga war xàcc tey dañal te xam ngeen du maasam nit ci dooleeg ci ak réyam xelay tax ba lislaam teg nu jëf waa ju ñàkk xel asal dootu am aw yiw te dootul yilif këram xelay tax nga xàmmee mbaax xelay tax nga xam lu bon xelay tax ba nit xam ci buur yàlla lëf xelay tax ba buur xam xelay tax ba nit xam lëf ci buur yàlla ak mbiram xelay ndab la xam-xam tab bi ngir ju ñàkk xel du xam lëf du xam lëf waaju am xel ami yëfam xelay leer ga nit xëy tedde moo tax ba aadamun di sangub malaaka ak jinne iblisu ñàkk ndam xelay tax ba nit rek kay sangub nit lu weesu nit xarit loo fi gis ngir nit la ngir moo yorom xelam xarit ñàkki gët mbaa ñàkki a gën nga ñàkk am xel-xelay nit nit niteetil ci ay cëram ku jàngoon walaatul xuubi ay diiku moo ilaa dangay xam ne kon kuy yàq am xel yi doon ngëm ma wax yenn mbir yii tax ba su ndaw yi xëy di dof ñi lay rab la ñii ay raab la raab yàq nay ndawam dofab rab dofab raab dafay wuuteeg dofab rab ci yenn mbir nañuy moytu yàmbaa daw dorog bàyyi ay mbiram dofab iilu ak bopp siisu ñoom it danaa ci ñëw damay jëkk a way kii sangaray yàq ak dundam bu kenn fo ni day reyum xel di yàqu xol lu rey xel di yàqu xol ku koy def du nit ndaxam te alcool alak naw gaay ku koy naan ni dootu wér lu waaye am lu dul wér jaay ko ngir jënde ko wéram la rek les di yàqal nit ci ay xol ci xol ak ci ay xëtër ñi xam nee ñu day dem sax ba far gàttal dundam la rek les di yàqal nit ci xol ak ci ay xëtër ñi xam nee ñu day dem sax ba far gàttalug dundam te dee diis ku koy naan mën na dee deegu diis te tar ndaluy fuq bët moo gën ci nit luy fuq ab xolam gisal waa ji naan sum gisal waa ji naan sum gisal waa ji naan sum-sum ne xëndëng ci géddi béy nelaw bay xaraan sum soof na lool xel yi lay gësëm amoon na ko màndim sëng faf dër di yeg-yegal ñu koy tàcc muy taasoo ko saagaa ci ay dëkkam te am na ko naan biiñ daanu ban sàcc lam yoroon te muy lim bu rëy boo xam ne moo yor dundab këram amoon na ko naan sampaañ di xeexoo ñu far ko rey sulaar saa jëm ay paaka ndaw deegu ñàkk jom ku naan roos du ruus nit dootu ruus yàlla dootu ruus njabootam ndaxam mën naa sëyëg yaayam ak rakkam wisig yeeg falaak day yàq am xel ba leen dorog kokaa gën kokaa yin fop cib xol a aw yaram te gis naa ko naan am ñollu daa man di bay tërëf xaleel yaa ko sottim ndox mu far yàq ay sëram te it am na dof yoo xam ne ay wérd lan yoroon baraw xaan yi dof loo leen ñu far toppi ay xërëm gisal benn waay buy wérd ab diir mu summi ay mbubbam summi caayam génn néegam di dox di dem te kam ban ko laajee nee na suuf see ko atanul malaaj waa ji kon san suuf la doon samp ay te tal sam ak rawxaan yi leen sànq ci xalel dorog mënti koo jot faw daf du lu neex xam te say jàkk tax nas cam di siisoo ko say ba dof kurus ak dofam day metti ndax yombulam pajam gisal jenn waa jee yuuxu tey daw di wërte naa dafay bañu doon ab xutbu kii séenu nag dofam te am raxasun sax-sax xarit xawma lum saxal lu dul ndof jëlal aw wu leer bay tal samam te tas tas na waay ba mu yuuxu xaccit mu tas këram te tas mbiram ak soxnaam ñu naan diir mu tas xelam kiitil ak katal ak makk jal-jal ku koy sigar bu teewloo war a naaree dafay baat yu saf xorom te ak na sabin ak xatari sun ku leen bawul dafay mujj rek fab ay mbubbam daanu ci sënam jaxaay yaay yi dëx tax tiilu dofloo na ay kuréel jalaal jal na fi bàmmeel te dofloo ñu am xorom gisal waa ji tëj néegam ba ab diir mu mbëkk daw te naa maane ajjabaaru maa tey ci ab ëttam ku woo umum muusaa yaayi xal baa ci ay kurus ma woo man ka bindoon yaayi Muusaa te yor mbiram ku fi woo afaaritun minal jinni man ma woo ka bindoon afaaritun te yor léppi wërsëgam dalal nag te tey sooy sakku mbir ndax ku woytuwul xer ak ëppal ak yàkkamti loo sakku doo ko xam faral noppi yow baas wax bu niiwee te xam njëriñ dafay doy salaatun yàlla na dal tax ak ñu ñam allahuma salli ala